We were. Leral TV mbokk internet yi Kazu Tabaski 2024 voilà macha allah tey ci lundi bi luuma Kébémer lañ nekk ndax Kébémer seen luuma chaque lundi la kon Kazu Tabaski nañ dugg luuma Kébémer xool nu muy demee xool xari fa lañ toll ak situation luuma bi daral bi ñu xam euh, tey euh, fa lañ jëm euh, ci tabaski bi ñu jëm a natt xar yi incha allah kon ñu dem xool luuma Kébémer ndax chaque lundi lay am par hasard ñu choisir a d'autres luuma am la ni mais lañ choisir nii par hasard merci ñu dem xool situation daral bi jaa mbokk Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu leen ziar leen tey ñu ngi fii ci daralu Kébémer Cap sur Tabaski ñu koy ubbee daralu Kébémer tey rek maa ngi taxaw ki nga xam ne defe naa ni mooy responsable daral bi ki nga ñu nuyu. waaw Sow. Sidi Sow fii euh, mooy daralu Kébémer est-ce que yaay nga ñu si daral bi kañ la kañ la fi nekk daral bi. waaw daral gi nekk yàgg na. waaye man ñaari at yi laa ne ci sama loxo chef du daral daal. ñaari at laa ko nekk fii. boo jiite ko. waaw laa ko jiitee gu mais nag yàgg naa fi moom li ma fi xam naa fi lu ëpp ñaar fukki at. Ah. waaw fii la mos a nekk. non non nekkul woon fii fii moom léemu yàgg fii parce que léegi mu am fii fukki at ak juróom-ñett yooyu am ko fi sax. waaw mu nekkoon na ci biir marché bi gannaaw bi mu nekkaat fii ci wetu luuma bi jigéen ñi jaay gannaaw bi mu ñëwaat fii ci wetu kër Demor bi mais nekk fii moom moo fi bëgg yàgg waaw yàlla mën ko bi fi mu toll noonu la gisee xar yi waaw xar yi moom dina bari fii moom wax dëgg yàlla ñoo ngi organisé pour suñu dara daal yaakaar naa xar du fi manqué te kuréel bu ne am na fi nit fa kenn ku ne daal fi nga toll boo ñëwee di nga am xaram ren moom wax dëgg yàlla ni mu organisé bu soobee ku fi ñëw di nga am xar muc mucc ay xar yu suur waaw xar yu yeew xar suur kon euh, ni nga gisee situation bi à presque vingt jours euh, yaakaar nga ne xar dina am waaw fii ak yooyu suur ñoom rek gis nga commencé nañ te commencé nañ fanaan sax ah. waaw wax dëgg moom fii moom xar du fi manqué moom yaakaar naa waaw ci wàllu euh, kii bi nag suuraay beeg yooyu est-ce que gis nga ne xar yi waaw xar yu suur moom moom fi yow moom wax waaw wax dëgg yàlla xar yi moom euh, du manqué am na am na xar yu suur xar rek même xar yu cokal dina fees dell daral bi est ce que am na loo xam ne tey ba euh, mat ñàkk na fi loo xam ne war na war ko soxla soxla ko waaw daral gi daal fi mu toll nii wax dëgg yàlla monsieur le maire ah, man dama koy sant rek ndax fan yi bi ma fi nekk ak léegi bu ma ko waxee a ah, mu ngi si jóg di fi yebal ay ndaw ñoo ngi ma jàppale daal te man nag lim nee naa leen maa ngi jikko jikko boo xam ne a ah, nit du ma defal may xarab hmm. dama naan kay la ma defal dolli ma waaye man kenn du ma defal may xarab la nga def dama naan li nga def de gis naa ko waaye nag maa bëgg nga gën a jàpp uh-huh. waaw dara ji moom taa yi wax dëgg yàlla monsieur le maire mu ngi ay ndawam ñu ngi si ñu ngi jàppale moom ndax lamp yi ak li ma leen waxoon grillage pour mu génneel ma nay ñu ngi si moom ñu ngi si taxaw waaw kan mooy maire bi euh, Lamine Thiam mooy maire bi kay maire sous-préfet sant nañu ndax moom wax dëgg yàlla ak SDA police ñoom jàmbar lañu fa ba léegi moom nga fekk may woo ni mu may wax ni mu naan ma gaa yi ñu ngi fi daf ko siñ mu ñëw sax moo ngi ni moom laa bëggoon woo police oto police bi saa yu ne ñu ngi taxaw ci sama wet moom lu may yëngu hmm. ñu ne ci waaw lumière am na fii guddi waa lumière bi monté nañ lamp yi gis nga leen nii waaw dëgg yàlla wàcc naa fi courant manit lamp yi tam nee nañ bu soobee yàlla dara du mañ waaw bu dee sécurité bi nag sécurité bi ñoom ñu ngi si ñoom itam te xam naa ne fii moom amul sax problème waaye sécurité bu dégg bëccëg ñoo gis nga oto police baa ngi nii ñu ngi taxaw wax dëggal fii daal macha allah man daal bi ma jiteg léegi oh. aw ma benn problème surtout ndaw ak préfet oh. ñoom ñu ngi ak commencé waa oh. ñu ngi ci moom lu baax ñu ngi ci lu bëgg macha allah moom macha allah waaw waaw barkalla lépp jàmm moom wax dëgg yàlla fii ngeen koy defee yaatu na soxla wala maanaam fii dañu leen ne amaguñu dara man leen comme fii ngeen am defar leen ba mën a am feneen yaatu na waaye nag bu ñu amee feneen nit nit moom fa mu ne defaral ba am feneen waaw boo fekkee ne yàlla def na am na feneen ñu dem waaye dama leen ni fii nu ne moom nan ko defar ba saa yu nu amee feneen dem waaw mu ngi aju ci ñoom daal maire su fuutee feneen defal nu fa dara nit dem waaw nu jóg fa dem jërëjëf kontaan nañ waaw waaw ma dugg na xool xar yi ak pël yi waaw tur Euh, dara lu Kébémer bi ngeen ci mën a wax ak euh, noo ko dundee. dara ah, bi daal li ma ci mën wax moo di ah ñoo ngi sant yàlla bu baax ah di sant suñu waajur di ndax bëgg ngeen doon sécurité place bi doon leen ci sécurité bu baax a baax a ndax gone yi ah ñoo fi fanaan ci jur gi commencé nañoo fanaan fanaan nañu biik. ah te dañuy ko guddi gu nekk fii mu ne dañuy commencé fanaan di toog ci seen jur ba asamaan seet moo tax doole leen sécurité baax na ci ëslëf ah lamp ya tàkk nañu gànne leeraay bi des na ñu gën a doole ay lamp ndax bu ñuy tëri ñu ñibbi suñu kër yi itam nu ñuy mag dañu ñibbi ci dëkk ba ñu bàyyi xale yi ñuy fanaan ak sàmm si ñuy fanaan ci jur moo tax sécurité bi baax na ci lool ah léegi jur gi itam njarata gi amatul solo amagul solo ndax jur gi bari na ci jënd mi amagul solo ah léegi nag ah yàlla baax na ndax xëy na balaa tabaski ñoo xëy na jur gi jar waaye nag moom jërëguñu de njar gi amagul solo de xar yi bari nañu waaye jërëguñu de waaw jërëguñu ah yàlla baax na nag alhamdulilah. jamono ji ak yi nga daan fekkee loolu est-ce que yaakaar ngeen dina dina am xar yi xar yi moom tabarkaale am ngi moom kenn sikki sa kooku moom moom kay xanaa jeex ak ñàkk a jeex na waaye xar yi moom tabarkaale sikki sa kawul moom xar dina am moom incha allah incha allah xar mu lu bàyyi bëggit nag am fi moom kenn ku nekk xar ma nga soxla boo ñëwee boo ñëwee Kébémer di nga ko fekk incha allah waaw. nag yomb moom yaakaaroon ko. yomb ak yomb di ko ndax kont bi ci boobu moo seer xam nga ripaas ni mu mel ak mboq ni mu mel ak ngooñ nga ciy jafal ak jur ba ndëgë ni wax dëgg yàlla mënut a yomb noonu suñu xar moom wóor na bu ñuy lambit moom wóor na yi a wante bu taxaw yi dëgg des waaw dëgg man bu si andi kon suñu màggal TV ñu daal di am tuuti kàddu ci sànni ci wàllu daralu Kébémer euh, daral gi nag xar yi bari na mais yombagul ndax li ko waral euh, dara alimentaire bi nga xam ni mooy couvre xar yi cher te munoo yeew xar pendant lu war trois mois chaque jour ngay dépenser mille francs di ko di ko jaay ci prix boo xam ni abordable kon loolu kuy jënd war nga xam xar mi nga tollool nga ñëw waxaale xar moomu jënd xar moomu mais da nga yore benn cinquante mille ñëw di waxaale xaru deux cent mille loolu moo indi xar yu cher yi mais xar yu ku nekk li nga yore li nga tollol soo ko jëndee mën a am xar moo tabaski nit ñi nag ñooy jël di ci dugal seen bopp loo xam ni nekkul li nga tollool daal boo ko jëndee tabaski jërëjëf waaw salaamaaleykum ñun waa daral gi noo ngi ci daral gi ah léegi nag ah di kii biñ doon wax meer a ah, am na mi mi ngi def ndax ñaar yiñ ko waxaan yëpp mi ngi ci kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm léegi ah daral gi daal muy ah, li nu nekk ci daral gi moom ñoom ñëpp xam nañ ko waaw ndax maire moom lim kii surveillance seen daal moom moom liñ digge woon ak moom moo di këgul waaye nag maire moom wax dëgg yàlla lim saso woon ah mi ngi waaw kon nag ndax monsieur le préfet moom wax dëgg moom baatam ca raay ba waaw ndax taxaw noon taxaw bu mat sëkk kon daal ñoom ñaar moo meer ah taxawu nañ nañ dolli rek ah, nañ dolli buñ doolee daal ah nu sant waaw kon na jërëjëf jëf moo ngi jaay mi ngi jar waa nag meer na do na mi ngi mi ngi defaat na dolli préfet nag moom baatam teraay ba moom lu mu mas a digle lu mu wax def na ko waaw mooy lu lu mu wax def na ko ñu dolliwaat bu baax rek xar yi moo alhamdulilah di ñoo ngi jaay mi ngi jar lu waaye bëgg boo ñëwee di nga am moo tolloon xar yi fanweer am na ñeent fukk am na juróom fukk am na juróom am na cinquante am na quarante am lu waaye am daal boo ñëwee am li nga tolloon benn problème bu di jooytu bu dul kuti yi matte waaw kuti yi daal moom ca ca ñi ngi ci ñi ngi ci pexe bi waaw nu gën a gaawe na moo nu ci gën a pexe mi daal ñu jéem nu ko rayal ba ñu ñu jóge fi waaw ñu pompe ko baa ñu def fi lu ko ray moom daal mooy problème kër yi féex na ñi ngi jaay mi ngi jar waaye yi ni matt nan nu tilim li wasalaam ba léegi ci ci daralu Kébémer sëñ bi na nga def sant yàlla alhamdulilah tur bi kii am ma Sow yàgg nga ci daral bi. waaw wallaahi xaw naa fi yàggala nag. Ah. wallaahi yàgg naa ci. Euh, tey ñi ngi jëm ci tabaski defe naa ni mun nañ ñi di ci des ci ñaar fukki fan lay toll. wallaahi ñaar fukki fan ci lay toll de. ci lay toll ah. ci lay toll boo gisee situation bi ren ak par rapport ak yeneen at yi ñoo ko mën dundee. en tout cas muy muy muy xar naam xar am na nag waaye njëg a amul. njëg a amagul nag. mooy waxaaleegul. non waxaaleegul prix amagul. Ah. xam nañ ne dañu amul xaalis amu dañuy yéeru nag. Ah. te xam nga nag gouvernement bi dina xar dina bëri ah. waaye nag xar yi moom comme niñu daan mel par rapport ak nii ah. moom wax dëgg la njëg amul parce que fi nekk nii da ngay xool gars yi dañuy yeew ba ngoon rek ñu yeew itam ah. man man man dinaa indi xar parce que man moom man seeka ëpp man Dakar la yóbbu nag man la yóbbu li ci a bëri man maa ngi la bi yóbbu waa jënd fii wala ci dëkk àll bi góor su ñaaw sa xam waaw si commencé naa maa ngi yor na xar si àll bi. Ah. yor na xar noo gisee moom fi mu nekk nii war na dëggal la sama bal. tanewul non jaadu na prix dafa jaadu. Ah, dafa yomb ah, wax dafa yomb fi mu nekk dañuy may jaay. ah heure bi dañuy may jaay. mais fee bi nag xamul mu ci. fee bi ah fee bi nag mu ci moom. dañuy maye jaay yu. parce que yàlla seet na xar bi nga doon jënd daaw cent cinquante. wala la si moom nga jënd cent dix mille cent cinq cent cent ah loolu dal xel. te xam naa man lu ma la ci wax lu ma xam la parce que depuis 97 ak léegi. waaw mosuma manqué Dakar. ah 97 ak léegi mosuma manqué année ba mu manqué si xar amul. wallahi macha allah waaw wallahi mais Kébémer dañ fi dëkkoon fi ñëw rek. man Kébémer fi parce que peextaan gi laa mais toujours maa ngi macha allah waaw toujours maa ngi Kébémer. kontaan nañ ko. jërëjëf da ngay jënd si wala da ngay seet damay jënd si. damay jënd si dara. non commencé naa jënd. Ah. waaw commencé naa jënd. Ah, waaw waaw jaajëf. jàmm baax. ñu eh, dara ah xumbu ne. Ah. bari na mbooloo bari na xar waaye njarte dem amul moom. amagul amagul de. yow da ngaa andi ñaata ñetti xar. ak ñetti bëy. mais daal ba léegi daal fi daal des na daal. waaw doxagul de. jaragul déedéet na de par rapport ak nam daan mel de moom wax dëgg yàlla. lan lay waaw des na mom waaw ni jadi dañuy dundee ni rek. waaw nit lagi xam moom gars yi yaakaar rek la ñuy dundee. prix bi toll prix moom daanaka kenn ak fa sa bi toll. loo jaay boobu. bii bii de maa ci bëgg 500 rek. ah. 500. 500000. 500 na de gars yi ko yar. wa ah me me me me gars yi gars xam nga ci jaan de. Ah, waaw rek ñu jaay ñu juróom fukki moom tuuti na ci xar mi wala xar mi ma lay jaay. ah wala xar mi ma lay jaay vingt kër laa lay juróom fukk baaxul. juróom fukki moom tuuti na. fu mu gaaree. fu mu gaar trois cent soixante quinze. ku la fay trois cent nga jaay ko de. ah ku la fay trois cent nga jaay ko de. trois cent cinquante ku la ko fay nga jaay ko. trois cent ku la ko fay nga jaay ko. non non. ah. non non. baax na. xaru patriote yi la quoi. patriote moo tax mu war a yomb nag patriote. patriote yi daa yomb moo tax ñu defal loxo loolu. waaw mais patriote ndax ñun xoolal. defagul fi dara de te ñi ngi baissé prix bi bu baax nag. ah waaw. gis nga ne xar na yomb. gis nañ bu baax sax lu am xar. ah waaw ah, pàcceet gi la. kon kay bii dañ ko ko def trois cent moom. non trois cent nag da ciy tudd ndax bii du xaru trois cent moom. Ah. waaw waaw foo dëkk yow. man maa ngi dëkk Kër Sidi Mbengue. fan la. commune Bandañ. ok sori na fii. mooy dix kilomètres. Eh, da ngay def tabaski da ngaa yoroon bii rek di ko jaay. non dañuy dañuy dañuy yor di sàmm di indi ci dara ah, ok waaw jaajëf waay. kon daan naa gën a. xar yombul. xar yombul. Eh. dëgg naa bi ngeen wax yéen waa gouvernement bi ngeen wax xar bi moom juróomi junni la commencé boo fanweer loolu amul xar xar den compte compte compte yi dafa seer xar moom ku xar yu baax cent cinquante deux cent wu ci kaw. waaw xaru baax amul waaw xar amul compte amul ñun ñu ngi jënd compte yu compte la ñuy def moom kii kii bon amee kar yow Dakar nga jóge yow gis nga Dakar Dakar gis nga foofu palaas suñu am tey moom am na moom kar yu baax amul dara Sodiba bi la ñu nekk kar la ñu liggéeyee waaw gisoo foofu benn kar heure bi dafay doon fekk ay ay million million kar ay junni junni kar nga doon foo nekk amul eh, amul waaw kon nag léegi bu ngeen proposé client yi léegi moom kar yombana moom da di def nii di am lii duna am ben car même si kat bu ndaw doona ko am <laughs> ganaar gaar doona ko am kari mom kari ah. kari kan du len maye ñun dana ko jënd rek dana ko jënd jaaya ah. waaw waaw kon instant bi dal ku bëgg xaar il nga ganna yo ñaata man instant bi ku bëgg kari yu baax cent wuti kaw ngay dem waaw 150 wuti kaw ngay dem ah. waaw gouvernement bi jóg jóg wuñu jóg ni nga xar fi ni nga xar fi indi nan ay kar ay rek la ni indi fi al xari kari yépp ñu ngi gis ko walal wala comme soeur kadi waaw bo deful mom ay 150 mom 145 mom quarante cinq moom doolin doolin doolin am comme bii nii waaw ki man mala ko wax wa amul mu ngi ni jess nga comme bu ñaari taxaw nak ñaari taxaw ah. yi mom ay 200 240 lañuy lañuy ki ay laaj waaw lañuy laaj ay xari laaj non kar yombul kar yombul nan ci nar ci tëdd foo ci ci ci lu nooy rek ñu ngi wax client yi kar yombar yombar mais daanu jógi fo daan xam kar yombul mais yow yow bi loo ko jaayee ñaar fukk ak juróom-ñaar mooy la cent trente cinq mille. cent trente cinq waaw. gars bi bi bi bi mën nga jël quatre vingt mille. non non quatre vingt mille moom tuuti na si. ah tuuti na si lool. non tuuti gàncax gi quatre vingt mille baax na. non non quatre vingt moom tuuti. ah lu jaar rek. ah waa def lépp quatre vingt mille. ah boo ko jaayaat def nga ci quatre vingt dix. cent dix. nga ci def. cent dix laa. nga yoo jaayee. jar na cent dix. jar Aduh. ko. waaw ci yow. wala fii ci yow. waaw di sax parce que ah bëgg a jaayee moo la nga ne jar na cent dix. ah déedéet kii moom quatre vingt kii moom quatre vingt dix mi baax dina waaw. waaw sëñ bi xar boobu moom. cent quatre laa wax moom nga waaw moom moom laa ko bëgg a jaay xar da xam nga baax na de sans waa day liggéey damaa bëgg mu am rek. xaay waaw. baax na. cent quatre vingt fay. waaw war ngeen war a mën a jubóo de ñaar. junne dox leen diggante de. maa koy jaay de. xar baax na de. waaw bi suur na de agra. waaw nekk na dama nga wax moom. xar bi yar la xaru yar. bu yar la boo ko réparé la lekk ba mel ni mu mel. mu mel ni mu mel. waaw. léegi saa waay mu fay jege ko. moom moom moom moom bii. jox ko jox ko micro bi jox ko micro bi. fay naa ko cent quatre-vingt-cinq. waaw moom cent waaw kon kay léegi ngeen waaw. aywa aywa xoolal yow da may jubóo wala. ah. loolu laa ko ñaan ah su ma ko ñaan de fii da koy Dakar. da koy yóbbu Dakar da koy paasal mu dem. waaw dara. ah xar mi suur na daal. macha allah suur na de. baax na kay. macha allah. suur na macha allah. ah quatre bi grand. bu bu jur bi bu mu la ko de xaw ma na foofu la mujjee yéen ñaar. Ah. xar yi lu muy jaar. xar yi jox ma fanweer. benn bu nekk benn bu nekk fanweer. benn bu nekk cent baaxul. ah benn bu nekk cent benn bu nekk na. ay ah? eh, benn bu saa cent baax na de. gàttal na gàttal na lool lool. non bii moom cent dix cent dix baax na. ah cent dix cent dix day gàtt cent quarante cent quarante. cent quarante cent quarante. non cent dix cent dix laa mën. ah cent dix cent dix laa mën. cent dix cent dix dafa ndaw. ñu waxaale loo may jaayee bi. bii jaay naa la. bii waaw. Ah. andi deux cent. waajal waajal tànk bi. andi deux cent ma jaay la ko. cent nag. ah cent nag. albarka cent. ah albarka cent. albarka cent. asalaamaaleykum. ah baax na saa ndaw na saa ndaw saa ndaw na waxal maa ngi ko nga ni saa ndaw na saa ndaw na indi fanweer non bii kay saa laaj ma loo ko bëgg a jënd lu jaar saa saa tuuti na sama grand gaan bi baax na saa de saa ndaw na wallaay bëgg naa la jaay sama laa ndaw rek salaamaaleykum rek sëriñ bi baax na ko jël léegi cent quarante cinq mooy yow loo ko bëgg a jënd lu jaar cent dix dañ lay prix cent dix moom daa gàtt wax dëgg yàlla bëgg naa la jaay